manduumatun min makaarimil axlaaq mu ne jamono yi yàlla yónni yenent bi sallallahu alayhi wa gis ne jamono jooju yonent bi fekkaloon nit ñi am diine ju leen di orienté ci jikko yu rafet waaye da gis ne jikko ju rafet mi ngi woon ci ñoom yonent bi bi ko yàlla yónni fekk na waa Màkka ñu bari nekk nit ñu dëggu nekk nit ñu wóor nekk nit ñuy matal kóllëre nekk nit ñu tabe mu ne loolu nag waqad tawaarasuuha kaabiran an kaabirin fa saarat saqaafatan tatanaaqaluha al ajyaalu wa taxtazzu biha wa yantaqisuuna man laa yuqiimuha bal yuayiruuna man laa yaltazimu biha mu ne dafa nekk lu ñu doon neewoon ci seeni maam seeni maam nekkoon ñu baax ñu woyof ñu tabe ñu dëggu ñu am kóllëre ñu wóor ñu ñëw loolu nekk mbaax gu ñu doon nee ci seen maam te du sax diine moo ko def ci ñoom moo tax yonent bi bi ko yàlla yónnee bi mu ñëwee waxul damay tàmbali tabax bi mais def ne dama koy mottali innama bu'istu li utammima makarim al axlaq yàlla daf ma yónni ngir ma mottali jikko yu rafet waaye ngir ma fondement jikko yu rafet yi taaliba sëñ yonent bi waxul ne yàlla daf ma yónni ngir ma fondement ay jikko yu rafet waaye daf ne yàlla daf ma yónni ngir ma mottali tabax bi hmm? boobu ngoro ngi fi woon joma ngi fi woon jomba ngi fi woon waaye dafa ñëw ngir mottali yooyu ci nan la ko mottalee mooy daf ko jëlee ci yëg-yëg yóbbu ko ci pas-pas mooy mbaaxul démb démb bidul lislaam fegug démb ngorug démb goreeg démb nit ki daf ko tegoon rek ci deret teg ko ci yëg-yëg su amee leneen lu ñëw tamit mën na koo influencé ba loolu jug ci moom waaye yeneen tamit lan moo tax mu ñëw ne dama koy mottali mooy daf ko jëlee ci yëg-yëg yóbbu ko ci pas-pas ba nga xam ne boo tabee sañatoo ñàkk a tabe ndax diine moo la ko sant léegi dëggu gi nga dëggu woon sañatoo ñàkk a dëggu ndax diine moo la ko dégg moo la ko digal am kersa gi nga amoon kersa sañatoo ñàkk kersa ndax diine moo la digal nga ñàkk kersa tabe gi nga tabe woon sañatoo nay ndax diine moo la digal léegi nga tabe da fekk kat nee na mi ngi ci yow mi ngi woon ci yow solidarité bi dimbalante bi suturaalante bi jàppalante bi am na lu ko defoon ci yow ci mbaax doon doonoon ci ay maam mais nag amuloon benn pas-pas bu wàcc bàyyeekoo ci yàlla bu la ko dëggalal ne la lii mooy mbaax wala la mooy sabab mais dañ ko defoon rek mu nekk lu naturel ci yow mais diine ñëw na def ko mu nekk pas-pas dig la ci yoon dëggu la ci boo ko deful soo dëggoo ne la lii la yàlla fay dëggu kat ku dëggu soo tabee mu ne la lii la ci yàllay fay soo nekkee ku wóor mu ne la lii la yàllay fay safaan bi mu ne la ay duma moo la ci fekk soo nekkee kuy fenn da lay yóbbu ci kàccoor kàccoor da lay yóbbu safar soo nekkee ku dëggu daf lay yóbbu ci mbaax mbaax daf lay yóbbu àjjan soo tabee mu ne la tabee garab la goo xam ne ma nga sax ci àjjana banqaas yaa ngi lan ci àdduna soo ca jàppee mu yóbbu la ba nga xam ne moom mooy àjjana boo nayee mu ne la nay garab la gu sax safara banqaas yi lang boo jàppee mu yóbbu la ba biir safara soo nekkee ku am kersa mu ne la kersa ngëm yàlla ñoo ànd boo amul kersa sa ngëm yàlla day dem noonu la ko toppee noonu la ko toppee ba mu jeex lu ci nekk mu digge ci yool safaan bi mu digge ci ay tëkku nga xam ne léegi nekkatul yëg-yëg mais pas-pas lay doon mu ne liy wane ne mbaax a ngi fi woon laataa jikko koy di yàqu yëlantu bi muy ñëw ci société màgg mooy nettali na yu bari yoo xam ne yu jiitu ci xeetu mbaax gu nit ñi doon doxal yonent bi nettali na jenn waay joo xam ne day dox ci yoon ba mu yàgg mu gis benn garab gu sax mu xam ne garab gi fii mu sax nii nit ñi mën nañ cee loro mu jël sémmiñam gor garab gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci loolu la ko yàlla yërëmee dugal ko àjjana kenn jigéen joo xam ne ñun ñëpp xamoon la ci jàggante ci def lu bon waaye dafa mos a dox ba mar toll ci ab teen jël jumtukaayam yam am muy kolam ak benn gojam wala baagam bu mu yoroon baagam mu jël kol ga takk ca ba mu nekk goj dugal ca teen ba naan ba noppi mu gis benn xaj buy yalkat ngir mar mu ne ah xaj bi de li ma gaaroon ci mar moo ko gaar mu daal di dindi wax kolam jël gojam wala jël baagam yooraat ca teen ba jox xaj ba mu naan ba màndi xaj ba màndi gu mu màndi te mu jaaree ci jigéen ju sàggan googu ci xeetu mooy yàlla ci la ko yàlla jéggalee dugal ko àjjana mu am jeneen jigéen joo xam ne am muus la jël muus yeew ko muus mi xiif joxul ko mu lekk muus mi mar joxu ko mu naan waaye jëfam ju safaanu jooju te kat nekk doon ku doon def lu bon waaye jikko jooju mu def wala jëf ju ñaaw jooju mu def moo tax bi mu faatoo yàlla dugal ko safar sallallahu alayhi wa sallam ci jigéen ji loolu mu def saxaaba yi dañ ne ko waaw ya rasulallah inna lana fil bahaimi ajra ndax bàyyi may dañ ci am yool mu ne ko na am fi kulli daati kabidin rutuba ajr lépp luy am rees lépp lu am rees nga fexe ba seral xolam ci waxi nga dundal ko yàlla daf la ciy bindal tuyaab kon mbokk yi Oustaz Alpha mi ngi may wax ne waxtu yi jeex na te ñu ngi tolloon rek ci ñamali ji duggaguñu woon sax ci biir thème waaye lu dul doyloo ci am doyloo bëggoon nañoo dugg ci madahirul azimatil axlaaq si yi wane ne nit ki jikkoom yàqu na muy ay signes yu baree bari yoo xam ne ni benn bu ci nekk ku mu nekk ci yow bu doon ne crise de valeurs feebar la dañuy wane ne si feebar yëpp feeñ na ci yow incha allah danañ ko jàppale idda ba ci yeneenu jataay yàlla ñu yàlla boole ci ñi seen jikko jag yàlla ñu yàlla musal ci jikko ju yàqu yàlla ñu yàlla may ñu nekk ñu dëggu nekk ñu tabe nekk ñu woyof nekk ñu am sago jamono mer nekk ñu yaatu dënn waaye nekk ñu rafet njortu ci sunuy mbokk yàlla yàlla musal nu ci rëy musal nu ci nay musal nu ci ñaaw njort musal nu ci bëgg daraja musal nu ci égo égoïsme ci gisoo lu dul sa bopp waaye musal nu ci xeebaate musal nu ci xeebaate te ñaaw njort bokk na ci liy jur xeebaat yàlla ñu si yàlla musal yàlla ñu yàlla boole ci ñu rafet njort musal lu ñu bokk ci ñu ñaaw njort lii moo jàppandi woon ci waxtu in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu